Euh, ci euh, fas yéene tere mboolem seen activité politique yu ñu amal ca dëkk bu sell ba di Touba rax ci dool itam sàkku ñu de vote euh, ya fa nekk di ab dogal wi nga xam ne ñëw na ginnaaw gi moom génn na lu bari yoon di ñaawlu xew-xew yi ñuy amal ca Touba te ñu di ko ñàkk a wormal ñu itam di ci du baaram ak tuuma woy politique yi naka ngay jàngate bi bile dogal. bi si njëkk tontub taalibe la te cib taalibe ndigalu sëriñ bi ci tuuba jëfe la laaj ñaareel bi tamit dama bëgg waxtaan ak mbokki Sénégal yëpp ndax kilifaa ngi di sëñ Mountakha yal na yàlla yokk taxawaayam wéral cëram te bàyyi ko suñu kanam lu yàgg yàgg yàgg li mu ji Sénégal mooy jàmm ak salaam mhm. sutura ak teraanga fu réew mi jaxasoowee mhm. indi na fa taxawaayam wane yéem ak pas-pasam ba yàlla barkeel toujours ay taxawaayam ba fu mu jàq rek su mu dugg ci jàmm ak salaam rek ñëw mhm. loolu moo tax ma jàpp ni moom moomu di sëriñ bi dafa am loo xamee ni daf ko jële ci xadimu rasul mhm. muy dëkk bii di Touba bam nag wutal ka ay orma yoo xamee ni kuy taalibe kuy Sénégal ku nekk mhm. war xamee ni loolu moom mooy lii màndargaal Touba googu te ay la yeewoon sëriñ bi artu na benn yoon mhm. artu na ñaari yoon ñun acteur politiques yi sàggan nañu ba nga xamee ne suñuy njaboot la plupart du temps am nañu ay difficulté mhm. téye leen te am na loo xamee ne bu wàccee ci Touba dinañu doon jafe bu wér ci ñun doon jafe-jafe bu wër mhm. ci képp koo xamee ni sénégalais nga ndax Touba aussi si suñu patrimoine culturel la bokk moom ak dëkk yu sell yi nga xam ñoo fi nekk muy Touba di Kaolack di Ndakaaru gi ak ñese euh, ak euh, lu mu tëddati euh, dëkk Njaasaan ak yi demee mm. noonu dëkk yooyee yëpp dañu am ay orma yoo xamee ni ala kulli xaal fokk ñun ñu góor góorlu jëm ko see matale mm. te nag aussi may fàttali nit ñi rek nii donte dafa yaatu ba doon la première ville du Sénégal ab daara la te biir daara moom def fa neex boroom kër ga. wala borom daara ji. te jàpp nañu ni tey jii lii ñu am jàmm ak salaam dellu si te sax daa iman Touba. ndax sëriñ bu mag bi ci boppam. moo wax ni Touba li abdin muridin saadiqin lahu moo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati. jàng alxuraan liggéey jaamu yàlla. yooyu mooy yi nga xamee ni mooy cëslaayu Touba. te war nañoo góor góorlu suñu patrimoine boobu nga xamee dañ ko bokk ak àddina yépp mm. ñu sàmm ko sàmmin boo xamee ni dara luy ñaaw du fa dugg ndax dëkk bu ñu waree rawee dina ñaaw loolu nit di fa dugg ñu koy def loo xamee ni méngoowul ak li nga xamee ni mm. mooy charte ak cëslaayu dëkk boobu alors en tant que actutique bëgg nañu xam itam njàngat li ndax euh, ñu ngi koy rappeler euh, Touba actuellement euh, c'est 600 pratiquement bureau de vote ak plus de 300 000 électeurs alors est-ce que mbir mi du ameek jeexital ci wàllu politique te aujourd'hui mun nañ ne lépp li ko waral bokk na ci également yéen acteurs yi nga xam ne jàpp nañu ne lu ji njaaga yéenay njaag bien sûr loolu moo tax conséquences yi muy indi ñun acteur politiques yi ñoo ko war a assumer ndax boo réer ni dëkk la boo xamee ni euh, puissance électorale am dafa am doole acteur politique bu nekk da ko war a sàmm ndax bu sëñ bi waxee benn yoon ñu xam ne conséquence bi mën na ñëw mhm. kon dañu war a anticiper affaire yi ndax tey jii bu ñu nee dañ koy génne délocaliser ala kulli xaal état du dara lu dul def rek lu dul délocaliser six cent bureaux de vote yooyu mhm. la cay ruus ak jafe-jafe ga cay am ñun citoyens ak acteurs politiques yi ñoo koy jël. Mhm. et la raison pour la laquelle li nga xamante dañ ko war a sàmm ci dëkk yi ñu am ak ni mu war a mel nañ ko góorgóorlu jox ko àqam ak fam ca na mu war a taxawee. Mhm. ndax man gisuma ab acteur politique ci Sénégal boo xamee ne bëgg nga fi am. taxawaay bu wér bu dëgër boo xamee ne doo sàmmoonteeg Tiwaawan doo sàmmonteeg Touba doo sàmmonteeg Kaolack doo sàmmonteeg Ndakaaro doo sàmmonteeg barab yu sell yi nga mm. xamee ni moom lañu am et c'est extrêmement important il va falloir que ñu delluwaat suñu ay militants préparer leen waxtaan ak ñoom pour que ñu gën a daw ci li nga xam ne mooy bëgg-bëgg sëriñ bi ci biir Touba boobu ba pare préparer wu bu bisu vote jotee fu bureau yi mën a nekk ñu góor góorgóorlu jël ay dispositions yu war a tax nit ñi dem voté ji pour que ñu bañ a euh, modifier structure vote bi en fonction li nga xamee ne mooy mm. bëgg-bëgg électeurs yi absolument et c'est important ñu jox la kàddu gi nga tàbbi ci waxtaan violence yi également euh, am violence yi nga xamante ne euh, fukki nit ak juróom benn ñàkk nañ seen bakkan bëri na ci loo xam ne également dégâts yu ci am matériel ndax yow bett na la ak naka nga ko jàngatee non bett ma mukk parce que réew mi depuis plusieurs années da ngay dof dof lu maa la gën a dof moom lañ ko téye. ak par parloo boo àndee man lu la neex wax lu la neex def boo àndulee ak man loo yëkkati musiba la doon ci yow et loolu tabaxul réew mi tey ji violence bi kenn mënu koo justifier c'est inacceptable pour réew mu mel na Sénégal nga leen may ba mu profité si sax jaalewaat ñi nga xamee nii euh, seen ñàkk nañ ci seen bakkan jaale famille yi euh, mastawu ñi nga xamee ni gaañu nañ ci ak surtout ñi nga xamee ni seen yoon nekku ci seen alal yàqu na ci te farewuñu gos farewuñu droite boole ka activité économique bi nga xamee ne mooy dundal réew mi paralysé nañ ko pour ay moment te loolu moo tax sëriñ bu mag bi daan wax ni lu bon lu tuuti jar ta xeeb ñu ne ko lu tax ndax dina jur lu bon lu dul jeex ba yowmal xiyaam ban réew la ñu am ak lan la ñu bëggal sénégalais yi defe naa ñooñ politique yi ñooy jóg nit seen itte mooy jàmmal Sénégalais yi wutal leen développement jamono yi ñu nekk nag gumba war naa tal leneen lu dul tëbi teen mhm. des millions de jeunes trois cent mille chaque année yu ñëw sur le marché de l'emploi pauvreté bu wér boo xamee ne na ménage yu dul jeex ci réew mi boolekaat ay jafe-jafe ci wàllu droit ci wàllu euh, liberté ci wàllu politique ci wàllu sañ-sañ yi nit ñi am parfois da ngay gis ay événement yoo xamee ni day jéggi dayoo ci li nga xamee ni ñàkk respecter règle de droit yu ñu am ci ñaari côté yëpp nag parfois parce que excès bu amee ak jafe-jafe bu amee fu nekk ngay gis ay jafe-jafe fu nekk ngay gis ak excès et c'est la raison pour la laquelle jamono ji ñu nekk nii ak li ñu dal ci université yeeg bërëbu jàngukaay yi xam nañu ni am nañu ay nawle ci àddina chaque moment bu ñu perte moment la boo xamee ni suñu ay nawle dañ ci profité pour rob dépassé ñu jëm sa kanam. ci ci loolu l'élément déclencheur c'est le procès Adji Sarr Ousmane Sonko euh, euh, fan ngay situer aujourd'hui responsabilité bi nga xam ne moo ñu indi ba ci situation bi tey. mooy li ñu nekk rek défiance défiance yi ñu am doole nekk ci bopp nguur gi. par rapport ak loi yu ñu jox suñu bopp. nga xam ne lu la ci neex parfois la ñuy manque de confiance boo xamee ne ñun acteurs politiques yi am nañ ko jëm ci système bi jëm ci état bi jëm ci justice bi et la plupart du temps avec raison parce que am nañu histoire yoo xamee ne dox na ci réew mi diggante une parlementaire u Khalifa Sall ak nañ ko foowee immunité parlementaire u Ousmane Sonko ak nañ ko fowee tey ci acteurs politiques yu dul jeex ñu ngi ci biir kaso bi et de des de position politique moo leen fa yóbbu boole kak yenn déficit yi nga xam ne am nañ ko troisième mandat et cetera et cetera loolu lépp boo ko booleek li ñuy dund ci biir réew mi je pense que ni lu ñu explosé loo dafa yomb je pense que ni affaire Ousmane Sonko Adji Sarr dafa bokk rek si la goutte ou les gouttes